moom mi jot fiche moom mi jot attestation ndekete moom ci boppam nekkul ci fiche am waaw non du beneen cas moom day firndewaat encore une fois que tout ce qui se dit là hmm. c'est un acharnement euh, contre Ousmane Sonko kon Pa Moussa suñu la déggee mooy lépp a ngi ci recours bi rien n'est encore joué loolu mooy justifié waxu maître Ciré Clédor Ly exactement wax ne ba fii ñuy wax ngeen il est toujours Sonko reste éligible ndax recours ba et d'une éligibilité incontestable table. d'accord quel que soit nag la ñuy mën ci wax. ëllëg ñu war a càmbar jomaay ñu bëri dañu ne. Mhm. lu tax Ousmane jël fukki député yeeg nangam jox Habib waroon ko wax mën a jomaay mu bañ a am lii am nii. comme man par exemple. comme man par exemple. wax nga koy it. dama ni tey jii nii ñoom amuñu fenn fu ñu mën a jaar jomaay fenn fu ñu ko mën a jaar amul xanaa di manipuler ay clé. di modifier ay données mais amul fenn foo mën a jaar jomaay léegi nag bañaloon leen lii nii jaroon na nga jël parrainage ya nga collecté woon ca joomaay citoyen ba jox Habib te jox joomaay euh, parlementaire bi kon fi mu toll nii. erreur la ah fi toll nii waxatuñoon woon waxu candidature joomaay te nee naa la léegi euh, am euh, am na ci seen i pexe lépp mi ngi ci fexe recalé joomaay ci parrainage bi. bu ñu xëyee suba ñu def ko duñ bett. man man ñoo fa jaar. man man man man loolu laa gëm. waaw ah, du la bett loolu léegi nag boo jàllale woon Diomaye ci euh, député moom ça passe comme lettre à la poste sa candidature passe comme lettre à la poste parce que ña doon tappale di wax ay mbirum dissolution wu parti moom moo nar a empêcher euh, Diomaye sa candidature. Hmm. ñooñu sax faf nañu noppi. parce que loolu amul tey amul ëllëg te musuta am. Hmm. te du mës a am ba faw bu doon loolu la dañ koy bañ a jox fiche parrainage dañuy bañ a jël euh, caution. jomaay neuf documents kenn du ko ko wax. waay kon donc eux ils sont jugés que ni les documents de Diomaye sont complets. ñoom wax nañ ko ñoom wax nañ càmbar ko. càmbar nañ ko wax nañ ko. waaw ko ba ko na régulariser ci euh, mbirum parrainage. kon ñoom valider nañ candidature Diomaye. kon kay en tout lu jëm ci parrainage bi moom. waaw da ngay déggee que ni valider nañ ko. te léegi ci neuf points yi ci neuf yi neuf ci dégg fenn yoon fu ñu ne la dissolution parti ci neuf yooyu noonu. déggoo ko benn yoon. dégguñu ko casier judiciaire la ñuy wax certificat de nationalité la ñuy wax euh, xool ndax parti wala coalition de parti investir nañ la te coalition de parti ñoom ñoo investir. Diomaye coalition Diomaye 2024. mandataire am di Amadou Ba di Amadou Ba. donc kon candidature Diomaye ñoom nangu dañ ko déjà de prime abord kon boo jàllale woon Diomaye ci député yi man moom moo doon gën a daal sama xel parce que il faut que euh, Ousmane yi def attention. ci Habib si Habib n'est pas un de Pastef encore moins un candidat de substitution ba léegi Ousmane Sonko joxoñul fenn joxoñul Habib Pastef ñaari candidat lañ am Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye ñaari candidat du tee Bassirou euh, euh, Habib nee na bu Ousmane daf ci waroon dolli bu Bassirou jàll <laughs> ah, dolli ci bu Cheikh Tidiane Dièye Diallo waroon na ko cee boole ah lu tax ah waaw. ah lu tax mais mais mais mais. moom Ousmane la amal affaire ah. Ousmane la amal affaire. waaw ba léegi Ousmane moom moo andi 111 bi. moo andi Joomaay bi. waaw Ousmane moo andi Cheikh Tidiane. moo koy Cheikh dafa ne woon bokkul. il avait renoncé à sa candidature. d'accord mais yow wóor na la ah, ah. ko andi. waaw Ousmane na ko andi ñoom dimbali nañu Habib mu jàll. ñoom waa Pastef mm. dimbali nañ Habib mu jàll waaye dimbali Habib mu jàll nag teewut ne ñoom dañoo wax ne Habib mooy suñu candidat wala mooy suñ substitut wax guñ loolu mais nëbb nañ ko nag ah? ñoom élu yi nëbb nañ ko de ñoom élu yi ñoom waaw ba tey ba tey mais nag li ma bëgg a ah, souligner rek mooy mais nëbb boobu aussi bu kenn def amalgame mel ni Ousmane Sonko moom moo ne gars yi joomaay mooy sama plan balaa ngaa wax plan A ak B ak C ak Z Ousmane Sonko kandidaa la Ndeye Mbiligi moom euh, il n'a pas encore dit son dernier mot waaye il n'a pas encore dit son dernier bien que ni moom aussi ci stratégie am di nga sentir ni. Hmm. am na yeneen pion au delà de sa. mais bien sûr bien ah, la moom il n'est pas de sa personne. Hmm. la ba muy campagne campagne bu métti bi deux mille vingt deux il n'était pas moom moo muyee la maillot. diriger les troupes avancer foncer ba imposer euh, une cohabitation euh, au pouvoir. c'était Ousmane Sonko et il n'est pas candidat Ousmane Sonko bàyyi na Ziguinchor am ñëw di campagne Dakar ci mairie kon Ousmane Sonko la koy sonal loo koy jugloo la koy xeexloo moom du intérêt personnel am moom njëriñu Sénégal lay seet donc kon moom moo toll ci station boo xamante ne actuellement donte lépp loo mën pour jaay ko doole pour éliminer moom son combat est en train d'être entériné euh, le projet euh, bi mu or bi mu mm. yor mm. pour Sénégal il est en de suivre son cours certes lentement mais avec détermination. Mm. certes ak ay galgal mais avec engagement. certes ak ay coups euh, bas mais avec une volonté sans faille. en attendant alors. juróom-ñeenti jeunes yi nag ñu ne téye nag. encore waaw encore. énième énième énième. trouble à la public. mais. luy participation à une manifestation non autorisée waaw ban ana manifestation bi. ana trouble bi. encore énième li ma lay wax sànq mais mais mais moo tax ma ne la encore énième ay bizarreries la yoo xamante ni suñ ko mën a tuddee wala ay incongruités yoo xam duñ ko gis lu may ci Ousmane ak njabootam kese au-delà de njabootam même sympathisant de Ousmane Sonko devient problématique hmm. sympathisant de Ousmane Sonko dalay exposé ci réew mi hmm. pas Ousmane ñoom sëñ Cheikh Thioro dañoo dem hôpital Samy pour seeti malade laa la wax seeti malade génn ñu ne leen yéen da ngeen bëggoon a dindi ay barricade kër Sonko jàpp ci sëñ Cheikh Thioro jàpp ci am Amdi Moustapha Mbacké ñoom Omar Bamba Diop ñu ngi ci prison bi ba tey jii may wax ak yow Amdi Moustapha Mbacké mi ngi ci prison bi te ci loolu lañ ko jàppee tooñ bu weesuwul loolu koo xamante ne kenn mësu koy gis ci fitnay dara koo xamante ne membre waxuma membre mais sympathisant wala ànd ak ñoom seex Thioro rek ça devient problématique ci ñoom ba tey jii may wax ak yow ñoom ñi ngi ci prison bi ñoom Omar Bamba job ñoom am Amdi Moustapha Mbacké ñi ngi ci prison yi defuñu tojuñu waxuñu defuñu lenn lu yee fitna ci réew mi bëgg Ousmane ko képp léegi problème la ci réew mi ñoom professeur Cheikh Omar Diagne ak Abdou Karim Gueye xurum xaq. Hmm. ñoom dugaloon nañu. dañ dañ dugal demande de liberté provisoire ñu bañal leen ko. ñu dem def appel au niveau de la chambre d'accusation mm. chambre d'accusation waxu leen dara le code de procédure pénale à son article 187 ne la buñ la waxul dara ba un mois yow considéré na libre nga hmm. bañ leen waxee dara ëpp bañ leen bañee wax dara ëpp na un mois ba tey ñu ngi ci prison yi malgré xam nga dañuy wax détention arbitraire mais bii détention maa tey la parce que juridiquement ils sont libres teewut ñu ngi leen téye ba léegi professeur Cheikh Oumar Diagne Abdou Karim Gueye xurum xaax à un boo xamante ne seeni famille ñu ngi taxaw ci njàqare mais est-ce que mën nga ma wax yow journaliste tu es au feu de l'actualité hmm. chaque jour yaa ngi koy traité c'est l'information ta matière première est que xam nga lu ñu jàppee Abdou Karim Gueye xurum xaax hmm. lu ñu jàppee Cheikh Oumar Diagne maanaam maanaam détenu yoo xamante ne nit mënu la wax ne lii lañ leen jàppee nit mënu la wax ne professeur Cheikh Oumar Diagne lii la def xam naa daal ci lendemain seen déclaration. Euh, bi parce que rek conjointe bi ñu defoon moom Abdou Xurum Xaak ak Clédor Sène. Damboj waaw Damboj. bu doon la foofu am na infraction dinañ jàpp ñuy bàyyi ñee attention bi muy def euh, déclaration de candidature moom professeur Cheikh Omar Diagne ca lañ ko jàppee lan lañ ko jàppee lan lan la def kenn mënu ma koo wax demal ci inf gars yi gën a euh, les chroniqueurs judiciaires sont là. xam xam infraction. ban infraction nga koy wax ban infraction nga koy wax. infraction d'avoir ambition infraction de ne pas être d'accord avec le pouvoir xamuñu ko xamuñu lan xamuñu xamuñu leen xamuñu xamuñu xamuñu seeti naa Karim demal kër Karim xurum xaaq xamuñu lan lañ leen jàppee depuis plus de dix mois professeur Cheikh Omar Diagne léegi mu def xanaa deux ans ci kaso parce que dañuy génne un mois dugalaat ko quatre mois génnewaat ko quelques jours dugalaat ko actuellement def nañ dix mois ci biir prison yi loolu fan la ko nit di teg. boole ci Aliou nga xamante ne ñëpp a gis vidéo bi vidéo bi c'est une vidéo de Ngone il faut lui rendre hommage nag à certain moment donné ah yàlla surtout ci parrainage mu ngi def liggéey bu am solo oui oui bu defee macha allah nga pare mais mais mais vidéo bi ne fàng nga gis Aliou ni ñu ko doon def noonu tey Aliou moom moo nekk ci prison maanaam juge d'instruction bi sax Aliou génn na ten Aliou Sarr waaw génn na ba ñëw émission balance. ne moom ci biir émission bi nañ delluwaat ci émission balance boobu nee na juge bi ci boppam bi mu xoolee affaire bi mu ne ko yow loo fi def yow fii du manifestation amu fi di te yow lañ tooñ yow lañ def nii vidéo baa ngi nii ne fang mu bàyyi ko procureur defaat appel ñu jëliwaat ko Sénégal fii la toll léegi. alors ñeenti. no non non non pas Ousmane. yi foog ñu mesurer danger bi wala ngeen di dem ci prison yi di seeti euh, xale yi. gars yi c'est-à-dire jeunes aussi courtois c'est-à-dire Omar Bamba Diop maanaam euh, c'est-à-dire gars yi gi ñuy àndal bëgg Ousmane Sonko Omar Bamba Diop moo jiite madame. Omar Bamba Diop waaw euh, ñoom ñoom ñoom ñoom am ni Moustapha Mbacké ñoo xamante ne c'est-à-dire des gens aussi courtois et inoffensifs bokk Pastef dafa mel ni léegi danañ ut porox ndool bu ñu koy duggee ci cote pénal créer ko une incrimination. bëgg Ousmane Sonko dañ ko créer incrimination wane ne léegi problème la ci réew mi ba ci booy yi nii di GPS. lan lañ def fatt fépp. fatt fépp ñu fekk leen fa. parce que mënuñ nooy booy dañoo fatt fépp ñoom mënatuñ nooy amoo looy def lu dul taxaw naa da teg loxo xanaa. kan moo pa yéen yéen infraction kan moo gën a kan moo gën a xam rek léegi lan leen di gàll. mais kan moo gën a def. trouble à l'ordre euh, public euh, euh, participation manifestation non autorisée dañ ma génneel. de lettre d'information bu ñu bind pour pour pour def meeting Amadou Ba bi fii porte à porte privé mais loolu c'est pas étonnant nag Ousmane ko fii la jug nemmeeku tour di dugg ci ay kër nemmeeku tour euh, porte à porte du ci place publique bi de ci ay kër ngay dugg waaye léegi dañuy bañ ñaari nit yu dox xanaa wala ñetti nit yu ànd di dox lii xam nga lii lañuy def di tooñ caravane ñu cortège ñu waaw parce que rek euh, wala am nga mandargay Pastef moo tax duñ ko bàyyi de man nañ ma t-shirt nañ ma andil ay jàllaabe ñu xool ndax loolu dañ koy tere ci réew mi buñ koy tere ci réew mi waa réew bi yépp ñoo war a jóg ku ci nekk ak sa màndargay Pastef xool nag nee naa la chaque jour bu ñu teg injustice Pastef wala Ousmane Sonko ñu ngi yokk doole ñu ngi wàññi seen doole. yaa ngi ñeenti digleem yi moom Ousmane. ban ak ban ak ban la fàttali ma ko. mu ne gaañe nañu moytu en tout cas waa Pastef nañ focus ci projet bi benn ñaareel bi fa laay taxaw ak yow. mu mu non nañ benn nañ ko benn bennal. Pastef nañu focus ci projet parce que moom ci projet la focus. moom Ousmane Sonko. moom Ousmane Sonko bu ne la nga focus ci projet xam na wax wax na la en substance. Mm. que nit affaire bi ce n'est pas une question de nit mais de projet. que le projet bi nga xamante ne dafa ay sénégalais yu bari ñoo ko liggéey pour Sénégal naat. Mm. moom nag Ousmane Sonko yàlla defal ko. tawféexu sénégalais yi am ci moom kóolute ñi mu àndal ci projet boobu am ci ñoom kóolute ba ne ko yow bootal projet boobu noonu bootal projet boobu noonu tax na képp ci sénégalais yi di ko déglu di gën a yeewu di gën a xam ànd ak moom ci loolu. Hmm. kon booy focus ay la yow focusal ci projet. Hmm. waaw parce que focus ci projet moom moo ñu àndi fii ñu ba ñun euh, sunu diine gi projet la. bu ñu focalisoon ci jëmm Seydina Mohamed bi rek mais day Seydina Babacar dafa ne ku ko bëggoon moom xamal ne nekkatu fi waaye l'islam mi ngi fiy dox. c'est-à-dire la substance de Pastef. Euh, am bi c'est le projet doxalin la gis-gis la vision la démarche la. moo tax ma ne la loolu kenn mënu koo dissoudre foo mës a gis kuy dissoudre du ñu dinañ dissoudre vision dinañ dissoudre doxalin. dinañ dissoudre gis-gis. Hmm. kenn mënu koo dissoudre man ndax fa mu nekk kay dissoudre yeggu fa kay dissoudre dafa am fu mu mën. moom ay kay waaw moom kay ja ca euh, ministère de l'intérieur la mënee waaye yeggul ci xelu nit ñi yeggul ci xolu nit ñi. Hmm. moom foofu mënu fa dissoudre dara ndax pexem yeggu fa. Hmm. lu muy bëri bëri pexe pexem yeggu fa. lu muy bëri bëri pouvoir pouvoir am yeggul foofu kon donc idéologie boobu noonu effectivement sauvegarder ko. mooy exactement li Ousmane Sonko wax faire focus sur le projet. beneen bi mu ne moytu leen bukki sàngoo deru bëy. bëri na fi fees ci réseaux sociaux. bëri na fi bëri na fi te li ñuy def mooy di leen xaajale. fexe leen ba benn bëri na fi ñooñu muy junj. xam nga xam nga day am yooyu bukki te sàngoo deru bëy ña ñana. déet man xaw ma leen di moom mais am na daal. ñu identifié. am na am na non. xam nga euh, bukki bu sàngoo deru bëy day bañ ko ko identifié <laughs> waaw. mën na la itam yow ba wax ni. am na kay mooy ni yoo xam am na si bien sûr ça existe. ça existe maanaam moom mi wax ni moom Ousmane Sonko mi wax ni. moytu leen. Mhm. bukki bu sàngoo deru bay mooy ni moom dem na ba xool ba xam ne ñii ñoo ma. non nee naa la arrestation arrestation Ousmane Sonko. c'était presque un mal nécessaire. Hmm. waaw parce que euh, projet bi projet la boo xamante ne taxawal ko dafa tuuri deret. Hmm. taxawal ko dafa roti liy bakkan. taxawal ko dafa privé ay nit de liberté <coughs> Ousmane Sonko bi yor projet boobu noonu moom fallait que mu ñam ci li ñam muy privation de liberté mais dem na ba ñam lu ci euh, gën a doy parce que moom lañ taxawoon di wax papam di wax yaayam maanaam dafa mel ni Ousmane Sonko s'était dressé un bouclier que lu mbonaat pour protéger le projet buuf ci kaw protège euh, projet bi ñu topp ci daram bi di dóor di dóor di dóor malgré que dóor nañoo dóor a dóor a dóor a dóor ba mu sonn li mu doon protéger li mu boofoon mooy projet bi ça reste intact. Hmm. et c'était ça l'objectif. léegi nag ci biir loolu noonu dem nañ ba xam ne ñoom ci seen bopp amatuñu crédibilité pour wax ci Ousmane Sonko lu nit ñi faale gis nga bu yàggul dara. am na ay euh, ñooñu duñ bukki yu sàngoo deru bay ay fukki bukki yu wane seen bopp ne bukki lañ ñu taxaw di wax ay fonds Qatar kenn dalee na faale booy dañoo ñëw teg seen i kaala Qatar mais mun a bu soo def kaalaam ñëw toog gars yi ne leen ñëpp ay Qatar lañ ñu xam ne donc mënatul nekk léegi lan moo mën a nekk pour que booy mën a euh, bàyyi xel pour que militants yi sympathisants yi mën a bàyyi xel da ngay jël lu nekk à l'interne hmm. peut-être que li nekk à l'interne waxam mooy ëpp portée parce que ñëlee amatuñ crédibilité. Ah. looloo waral yenn bukk yi. yan wax la sàngaaw deru bay. parce que wax yi bëri na jamono ji de. bi décision bi rotee ci Ousmane Sonko ci guddi ga. am na am na wax am na de. Euh, euh, bon je ne commande pas ay wax. waaw loolu laay mais mais ci biir. parce tax mu wax nii am na lu wax rek li waral Ousmane Sonko wax lii. lii moo ko parce que am na ay bukki effectivement yoo xamante ne deru bay la ñu sàngoo. loolu gars yi mën nañ koo identifier nag. nuñ koy identifier. non xel la rek c'est-à-dire gis nga fii gis nga fii lépp lu nit wax xamal ne ñi lay déglu ñoo la ëpp xel fuuf xamal ne ñi lay déglu amul kenn ci koo xam yàlla da laa nattu rek teg la nga dekk ci écran bi di raji raji waaye ñoo la ëpp xel fuuf manipulation. ah mën nañu ko xool ci ñiy wax jamono ji tey waxal. mais bien su non non cest à bu sàngoo deeru bay fi mu toll nii ci waxin mooy euh, communication la du leneen du hmm. donc loolu noonu effectivement c'est une réalité. kii hmm. est là loolu ku nekk daf ko war a moytu. Hmm. infiltration maanaam dugg Pastef di Pastef Pasteflu di Sonko sonko lu te fekk ne yaa ngi ut luy démoraliser parce que fi mu toll nii Ousmane Sonko moom moo téye. c'est le maître du jeu électoral c'est le maître du 25 février Ousmane Sonko la. léegi nag lii nga mën a def mooy extrait ko de cette substance là comment en démoralisant ses troupes. Hmm. peine perdue loupé encore une fois boo yëpp focus. ci le 25 mu ne ñu yeesal confiance bi ñu am te xam ni scénario bu mënti am ci wàllu politique ci yoon daal. benn mhm. génne fi ñu nekk xalaat nañu ko. Pa Ousmane Ousmane Sonko Ousmane Sonko fooweewul crédibilité am sénégalais yi bu ñu am ci moom hmm. Ousmane Sonko xam na lan la fooweewu ko mars deux mille vingt et man li ma jàpp mooy ne euh, am na ci loo xamante ne. Euh, erreur la de sa part. Hmm. de am lu ko metti war a dem suite boote parce que xamul woon fi ko sénégalais yi teg. Ah. bi mu jugee ci événement yooyu Ousmane ko gën a xam fi ko sénégalais yi teg. gën na xam sénégalais yi fi ñu ko wóoloo gën na xam sénégalais yi ni ñu ko dugalee ci seen xol bàyyee ko xel ba mu xamee loolu nag joué watul ci ay tâtonnement joué ci ay làmbaatu. Hmm. nee naa la li mu téye sànniwu ko fooweew ko sànniwu ko fooweew ko. waaw ah, parce que. <laughs> wax fooweewu ko ci benn yoon sénégalais yi jël seen. confiance yenn mu nuru kenn. yenn saa yi mu sénégalais jël seen confiance. ne ko ñun gëmm leen suñuy bët. foo nu joxoñ foofu la ñuy xool. loolu danañ wax. loolu nag moom xam na responsabilité bu ci nekk. c'est une très grande responsabilité pouvoir bu ñu la jox la de. Hmm. mais avec une très grande responsabilité ay millions de sénégalais ne la gëmm lañ yow la ñuy déglu joxoñal ñu agir foofu joxoñ boobu noonu warul am erreur. <coughs> joxoñ boobu noonu warul am euh, ambiguïté donc Ousmane Sonko mesure bu baax a baax a baax muy ngi mesurer te moom li mu doon ci askan wi donc kon fooweewul crédibilité am fooweewul confiance boobu noonu sénégalais yi passé ko sànniwul li mu yor. scénario yi muy junj yaana. yëpp non scénario buñ la yëpp. buñ la yëpp mooy candidature am juridiquement c'est valide. Mhm. avancé nga joomaay nee naa la Macky Sall xam na joomaay xam na joomaay. ci cadre liggéeyam xam na ko. waaw xam na ko ci mm, cadre liggéeyam. xam na kan mooy joomaay. bu demee ba xam ne sonkoo gën a sedd ci moom que joomaay xëy na mu bàyyi Sonko joomaay euh, dem toog dëgg la di Sonko gën a sedd nag ci ku mu mënti doon. Macky Sall loolu la comprendre euh, ñoom ñoom ñoom ñi ñoom ñuy xeex Ousmane Sonko loolu lañ desee comprendre Ousmane Sonko gën a sedd ci ñoom parce que un du fayante ñaar. Ousmane Sonko dafa am envie liggéeyal sénégalais yi parce que nee naa la. bi mu comprendre fii ko Sénégal teg Ousmane Sonko pare na tout pour delloo njukkal sénégalais yi naka en rendant leur pays euh, émergent naatal seen dëkk Ousmane Sonko maanaam li muy def yépp pour delloo sénégalais yi njukkal ci defar seen réew par rapport ak sénégalais yi ni ñu ko taxawoo ci lu bare bare alors au vu de ça effectivement. am na plan wu buñ ko éliminer ah. am na plan wu buñ éliminer Diomaye am na plan wu toutes les éventualités te fi ñu ci toll nii nga ne plan wu buñ ko éliminer mhm. am na ko plan bu ñu éliminer Diomaye tamit am na ko mhm. pare na lépp fa lañ ca yem wala pare na lépp xam cest nga lépp tamit boo ko naree cité lépp moom moom mooy lépp rek Paa Ousmane. Paa Ousmane fii radar la xam nga. waaw mais lépp mooy lépp nag c'est-à-dire. xam nga xam nga bàyyiwul dara lépp mooy lu bàyyiwul dara. Ah, justement léegi ma lay laaj nag bu bàyyiwul dara. waaw indi nga ñaar. andil ñett andil juróom andil fukk bàyyiwul dara. cest loo xalaat rek loolu ngay xalaat noonu te ñeme woo ko wax ci la bokk <laughs> loolu internet bii di xalaat nii ci la bokk <laughs> lépp ngi ci waaye Ousmane Sonko daa pare de xam nga li ngay xalaat te waxoo ko. mi ngi ci euh, tous les scénarios possibles tous ont les été scénarios possibles et envisageables. scénario politique Ousmane Sonko pare na. pour donner une réponse adéquate. Hmm. ñi ko ànd ak moom ces militants ces sympathisants ñi nga xamante ne nee nañ ko wóolu nañ la. Hmm. yow la ñuy déglu ñooñu nañ ko déglu te xam ne du leen décevoir.